nee leen ci ànd bu rafet bi ak suñu programme fii ci Global Télévision dal leen ay jàmm ci xibaar digg bëccëg gi ñu door ko ak li ci gën a fës mu bokk ci li nga xamante ni moom mooy euh, kàddu yi ñu fësal euh, moom euh, maire bi nga xam ne moom moo nekk fële ca kon Tambacounda daal di indi nag ay leeral foofee ca ñaani tukkuleer gannaaw nag ay kon suuf yoo xam ni toll na ci junni yu toftal juróom-ñeent ci ay hectares yoo xam te nee nañu daal dañu ko jox ñenn ci ay doomu aadama mu nekk xaaj ak seen moom nag maire ba daal di fësal ay kàddoom jëm ci ab projet boo xam ne nii dañ ko biti peewoon domaine agricole communautaire dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ba tey ci xibaar di ñu yóbbu ba li nga xam ni moom mooy ab daje boo xamante ni amoon na ca fi nga xam ni moom mooy école technique bu Thiès ñëw nag jëm ci wàllum transition énergétique ndaw yooyee nag taxaw nañu ci àpp colloque boo xam te ni ah, daan nañu ko amal ci diirub eh, ñaari fan ci ah, lu ni mel ak nu mu mën a eh, jaaree ba daal di soxal li nga xam ni moom mooy Afrique dinañ ci ñëw ci nu mu eh, gën a yaatoo ba tey ci xibaar dañu yóbbu ba eh, ci eh, daje bu yaatu bi nga xamante ni nag am na ci diggante eh, njiitu réew mi ak ki nga xamante ni moom mooy kii di Antoine Blinken nekk nag secrétaire d'État américain moom nag daal nañ fa yëkkati ay kàddu jëm ci lépp loo xamante ni soxol na lëkkaloo bi Sénégal am ak États-Unis ak li nga xamante ni moom la ñu namm def ba xeex lii di wàllum mbuxum fii ci mim réew dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatu toftal ci li ci yéenekaay yi ñu xëyandoo ñu yëkkati jotaay bi. ñu daal di nag addu ci euh, génnuk àddina ki nga xamante ni moom mooy Amadou Mokhtar euh, Mbow nekk nag euh, kilifa goo xamante ni ku ràññeeku ci mim réew professeur Amadou Mokhtar mbaw nag figure la boo xamante ni daal dina kon làqu bi mu amee téeméeri at ak ñett dundam googee nag daf ko kon gën a lëkkale ci lépp loo xamante ni dox na ci soxlay taxaw ñi nga xamte ni ñoo di aw askanam nekk ab ministre nekk it directeur général bu UNESCO atum 1947 ba 1987 moom moomee di Amadou Mokhtar Mbow nag ñu sikor yéen daal di euh, denc ca euh, sëgg yi nga xam ne moom moo nekk fële ca Yoff ni ki kon euh, tey jii ñu ànd ci ak kii di Abdoulaye Ndiaye mi ci def ab nataalam Amadou Mahtar Mbow wuy ji sunu borom dëddu muy nag xibaar bu tiis bu metti ñu xëyandoo ko nekkoon directeur général bu UNESCO daal di nag ayam gi mu jiite banqaas gi def ci liggéey bu mucc ab ci wàllum jàng aada cosaan téeméer ak ñetteelu pour anniversaire sax yàgg koo màggal moom mi nekkoon na militaire ci ñaareelu guerre mondiale bi nekkoon na député nekkoon ministre de l' éducation nationale ci atum 1974 mu nekk der bu ñuul bu njëkk jiite bànqaas bi nekk ci Nations Unies ñu wax UNESCO mu nekkoon xeexkat ci wàllum nomique fexe ba lu jëm ci aada ak cosaan kenn du ko salfaañi rawatina wàllum jàmm moom mi sax jot naa taxawal kuréel gu ñu wax ñëpp ñu nekk ci dëndu Afrique te yëngu ci wàllum bibliothèque kaggu yi ca saint yu sax ci fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar atum 1957 doon na ki njëkk a jiite kuréel googee ñu def nag liggéey yu mucc ayib ci atum 1930 nag moom mi mu dugg ci école coloniale moonte de ñetti atit lu ko jiitu doon na dem ci daara di tàggatu bindu ci cours commercial bu Dakar nekk fa ku tàggatu ci wàllum jënd ak jaay commerce ci atum 1938 mu jàll concours bi nga xamante ni moo tax mu mën a nekk ci administration coloniale ci la rek nekk ki nga xamante ni jàll gu mucc ayib la ci jàll ci lañ ko rek daal di yóbboo ci bureau courrier bu gouverneur bu circonspection bu Dakar ak d'indépendance jërëjëf Abdoulaye Ndiaye ñu daal di nag desandi ci wàllu ba léegi daal di nag addu ci kon moom moome di Amadou Mahtar mbaw ndax nag laata ñu koy yóbbu ca sëgu yof ya amal nañu li nga xam ne moo di kon levée du corps ba daa dinañ fa nag euh, àddu ci euh, lépp loo xam ni jëm na ci taxawaayam ci géew politique gi foofee nag ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ay am di jàmmam ay euh, mbokkam ku ci nekk daal di nga ko rendre hommage waaye nag daal di fa yëkkati ay kàddu yi seede yu ama am solo ci taxawaayam ci bi mu fi nekkee ak li nga xam ne jot na ko liggéey bu baax a baax jëm ci muy assise nationale yi conclusion yi fa jotoon amal ak lépp loo xam te ni liggéey na ko ci kon mim réew ci loolee xam ni moom mooy cérémonie de levée du corps ñuy euh, wax ne kon euh, njaal ma ñu ngi koy amal ca këram ga nekk fële ca point E. kon ci sama euh, kàddu waa global télévision ñu ngi jébbal njaal Sénégal gi yëpp wala àddina gi yëpp rawatina ñi nga xam te ne ñoom ñooy njabootuk Amadou Mokhtar Mbow te di ko ñaanal suuf woyof ci kawam. ma ñu dem nag ba fële ca Tambacounda ci ndorteelu xabaar yi doon nañ leen ko wax sànq ki nga xam te nag euh, moom mooy euh, maire bu ñaane tukuleur yëkk tey kàddoom jëm ci ay suuf yoo xam ni euh, dañu ko daal di jox nag ay doomu aadama ñu ne nag ay nit lañu ñu daal di tànn jox leen yooyu les suuf moom nag yëkkati na ay kàddoom ci lu nu mel seetal ab deram waaye indi ay leeral jëm ci loolee nga xam ni moom mooy domaine boobu nga xam te ni dañu ko rek joxoon ñi nga xam ne nii eh, ñoom ñooy eh, ñoo xam te ni dañoo lëlu rek ci eh, programme bi nga xam ne mooy domaine agricole communal moom nag gis na ne daal lu jëm ci lu ni projet boobu ba léegi mu ngi toog di xaar fii fukki fan ak juróom ci weeru octobre nag suuf soos nga xam ni moom la ñu jagleel ñu ni bu fekkee ne rek respecté wu ñu lépp lu jëm ci clause yu ni dañu koy daal di rek daal di kon euh, réaffecté loolu nag moom la daal di fësal moom moom di maire bu ñaan euh, ñaani Tukulër Seydou Ba lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom ak suñu naataango amadu Diallo. Eh, jamono nguur Macky Sall ministre euh, ministre euh, jeunesse na Tamba fii mu ne Tambacounda dafa war a am dak bi ñu ko waxee nag mu ne ñaan tukulóor am na suuf ñaan tukulóor war na jël dak ba ñu d'accord ma jël mille hectares bi jox ko Prodac ñu toog ñaari at Prodac ñëwut yëngatut ma woo conseil municipal ñu waxtaan ñu ne nañ jël suuf bi kon ko joxewuñu ko pour di ko gaare dañu ko joxe pour euh, agricole ñun béykat lañu dañu ko joxe pour nit ki ñëw investir foofu mu amal commune bi njëriñ comme que na ñëw dañuy jël ko euh, suuf bi ñu ne comme que suuf bi joxe nañu ko Prodac ñëwut joxe nañu ko business global moom la ñëwut ba dañu xool ñu joxaat ko ñeneen ñu xool ñoom ne day ñu ñëw yàlla dogal na am na ku ñëw am na ñu ñëwut léegi nag ñaari at ñaari at bu ne man ku ñëwut damay jël te 15 octobre mooy ñaari at bi man gisatuma lu jar foofu coow 1000 hectares bi dama ko tasaase ci quelques nit. Hmm. mais keneen kenn moo ñëw. ñu ñëwut nag ñëpp comme ni ma defoon li paase rek. Hmm. noonu laa defaat. Hmm. man ak conseil municipal yi. muy noonu di ay leeral yoo xam te doon na ko fësal ci suuf soos nga xam te da ko jox eh, ñenn ci ay nit ñenn ñi nga xam ne ñoo jël seen wàll ñeneen ñi eh, kon ba léegi ñuy eh, xaar seen taxawaay. jëm ci euh, kon euh, fukki fan ak juróom ci weeru kon octobre bu fekkee ne rek euh, lu ni mel jotuñu ko daal di jël dinañ ko daal di réaffecté dinañ ci kon gën a yaatal ñu wàddu ci beneen xibaar boo xam ne moo fësal ci Crim Health ñi nga xam te ne Africa ñi doon amal ab lël boo xam te ni jëruñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi mu nga fa woon di kii di Codou Badiane ci lu ni mel nag moom jëwriñ googee ak ña fa ña nga xam ne ñoom ñoo teewe boobu lépp daje dañoo rek àddu ci soppite gi nga xam te ni moom mooy am ci climat bi ak euh, li nga xam ne moom la mën a jur ci wàllum kon wér-gu-yaram ñu gis ne nag jot na ñu daal di euh, jël ay pexe yoo xamante ni képp koo xam te ni rek yaa ngi dund lu ni mel euh, am loo xam te ni noonu nga war a mën a doxalee ba lu ni mel du la indil kon ab lorange moom jëwrin googee nag àndoon na fa ak yeneen nit ñoo xam ne jóge nañu fu ne ci àddina bi ngir daal di xewee fekke kon boobu lépp daje ñu daal di ci teewlu ay kàddu doom mu denk euh, suñu naataango am satu gano réewu Afrique yu bari yu ëpp euh, ñaar fukk euh, fukk nit ñoo xam ne ñoo représenté pays yooyu ñu ñëw fii daje ak mbootaay bi nga xam ne mooy yor wér-gu-yaram askan bi ak benn organisation bu ñu wax Clim Health Africa pour waxtaan si naka lañuy ñuy def ba nga xamante ni dinañu mun a liggéey si li nga xam ne mooy tax. nit ñi ak suñu système de santé maanaam suñu établissement de santé yi yi centre de santé naka lañuy def ba nga xamante ni euh, li ñuy wax effet changement climatique yi dinañ si mun a dinañ ko dinañ si mun a résister maanaam dinañ mun a taxaw ba euh, fekk ko ba nga xamante ni du mun a indi gàllankoor gàllankoor gu doy waar si si wér-gu-yaramu nit ñi mais aussi si si système de santé bi. waaw changement yi. ku nekk léegi dégg nga ko foog naa léegi kenn dusu ko expliquer ñëpp xam nañ ko parce que léegi ñaan ñoo gis ñuy wax ñi ngi wax changement climatique bi moo ko waral dinañ ko dañ koo dund mooy maanaam li ñuy gis euh, nawet bi dafa gën a gàtt mais yenn saay mu sotti ndox boo xamante ni si benn diir bu gàtt boo xamante ni day indi ay ay gàllankoor yu doy waar mooy li ñuy wax inondation yi donc inondation yi dafay gën a bari mais aussi taw bi mu waroon taw ndox mi mu waroon a taw ci at bi dafa wàññeeku donc day indi maanaam li ñuy wax sécheresse li muy indi si wér-gu-yaram dafa bari te yooyu yëpp day indi gàllankoor parce que nit ñi nga xam ne dañoo am problème muy maladie chronique yi yu mel ni ay hypertension ay maladie cardiaque et cetera maladie respiratoire maladie nooy ñooñu ñëpp bu tàngaay bi jéggee day wa day yokk seen seen feebar. alam geeg euh, keew gi euh, ñoo des ba tey euh, ci li ko wër ndax nag ku gis jamono ji suñum réew ni mu kon doxalee ah, xam ne am na mbell moo xamante nii moom moo am si réew mi bokk na ci li nga xam ne moo di wàllum pétrole bi lu nag daal di ñu yóbbu ci lii di wàllum énergie fu mu nekk nag euh, dañoo toll ci jamono joo xamante ni dañuy natt suñu bopp ndaw yi nga xam ne ñoom la ñuy euh, tàggat euh, ci kon polytechnique bu Thiès bootu ci ab association daal nañu nag fekkee ab colloque boo xam te ni diirub ñaari fan lañu ko daal di tëral doon fa tàggat ñu lu ni mel àddu ci xam-xam boobee waaye it euh, daal di fësal euh, li nga xam ni moom la mën a kon yóbbee Afrique ci ñu gën a mën a daan di ràññeeku ci àddina wërngal këpp ci wàllum euh, développement jëwrin gi ñu dénk wàllum énergie bi nag moom moo ko teewe woon di Birame Souleye Diop ñu teewlu ay kàddoom ak Masro Diassé mi du lenn lu dul wax ni ñi ko def muy waa adepte mooy ñëpp ñi nga xam ne bii ñu ngi leen formé ci école polytechnique bu Thiès ñoo am xalaatu organiser colloque bi colloque bi nag thème bi mooy ban transition énergétique manam ci walu wi ñuy def ngir ferñeent ferñeent yu jur euh euh l'air lumière énergie naka lañuy ñuy sëyale yooyu yëpp pour permettre Afrique jëm kanam ñëpp xam nañu ni lolu bokay wax ñetti anam ci nga mëna jaar ben moy njariñ bi ci nit ñi jëlee moy pour permettre que bépp sénégalais fii ci réew mi bépp africain mën di jot ci leer yooyu nga xam ne day tax bu timisee bu lëndëmee mun a mun a kàccet lamp lamp tàkk mu jot ci lumière ba nga xam te ne dina tax ki nekk ci dëkk bu sori bi wala ki nekk ci ndakaaru ñuy bokk yam ci loolu. ci loolu naka la ñuy def ngir li fi gaz wala li fi pétrole naka lañ koy wëlbatee togg ko ba mu wëlbatiku duggaat ci sunu énergie te ci njëg goo xam dina tax képp ku bëgg a jënd. képp ku mën a consommer nga consommer bu weer dewee facture nu mu mën ci toll nga mën a fay. waaw xam nga bu fekkee ni ki nga séqal langue bi dafa la ni man développé naa am naa sumay énergie am naa pétrole am naa gaz jëfandikoo naa ko ba toll naa ci benn anam bi yow yaa ngi am pétrole yaa ngi am gaz mais jàppal ni pétrole ak gaz baaxul teg ko nële dama nga jël li la jant bi jox boo ko waxee dëkk bu mel ni Sénégal yaa koy wax ne ko ngi lay gasal kan dugal la ci fekk na ñun suñuy soxla ñu xamal nañ ko suñu bopp lii Sénégal daal dul mën a def mooy bàyyi kenn di ko sàkkal yoon wu muy jaar ci lii. ñu dugg ci géew politique gi nag ak beneen parti boo xamante ni fum na ni nii samp na ndëndëm di am ak SDK yaakaar. bi nga xam ne nag ki ko jiite di suñu naataango Mariam Selikan moom nag euh, daal dina amalub daje taskatu xabaar yi ni ki démb ci talaata ji foofee nag fësal na fa li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam daal di dem teew ci pencum ndaw réew ma ndax nag soxla nañu ay nit ñoo xam ne seenum xel sell na seen taxawaay sell ngir ñu mën fa daal di toogal ñi nga xam ni moom mooy askan wi ci lépp loo xam te ni soxal na leen ñu euh, teewlu ci kii di Amsatou Gano Serigne Niang ñi nga xam ne demoon nañu ci boobu lépp xew-xew coalition MSK dëkkal yaakaar nga xam ne Amarem Sely kan moo daal di ko jiite moom nag ba mu janoo wek taskatu xibaar yi ni ki tey fësal na ay programme am yi mu fas yéene topp ci les législatives yu ñu dëgmal ci atum mu jàpp ne war naa nekk ab occasion ngir ñu andi coppite waaye tamit daal di jox xar kanam bu bees ali di assemblée nationale xam nañ ne mën nañu waxal askan bi ndax xam nañ ne askan bi namm nañu gis ay kanam yu bees ay nit yu bees qui biir assemblée nationale ndax xam que ne askan bi qui ci assemblée ñuy ay session parlementaire euh, toute une journée ay so ay song lañ fay gis ay cooki ay saagante ay xarabante. jigéen nekk waay ci famille xar tànk tubayam ngir transmission des valeurs waaye tamit ak lii di éducation ndaw ñi looloo tax ak kii di Marème Selli Kane jàpp ne bépp jigéen dañ ko war a dooleel jaarale ko ci entraide formation ak solidarité. gis nañ ne jigéen yi lottu nañu torop torop torop ci dëkk bi la sonn nañu ñoo yore kër yi ñoo yore euh, ndugg yi ñoo yore marché yi ñoo yore yëpp. waaye wax dëgg yàlla joxuñu leen seen gëdd nu mu waree te ay jigéen yu am maanaa ñu ngi ci dëkk bi ay jigéen yu xam seen bopp yoo xam ne mën nañu waxal askan bi li askan bi di dund li xale yi di dund li kër yi di dund ñoom xam nañ ko te mën nañ ko waxal seen bopp ci bu ñu sukkandikoo ci njiitu coalition bi moom na ma ngay xam li lii di ndaw yi amatuñu yaakaar ndax bépp coppite buñ doon xaar ci biir réew mi daanaka gisuñu ko te ñoom nag ñu bëri ci ñoom daal di jaay seeni bakkan ngir loolu ba tax na ma ngay xam li ni waroon nañoo amal lii di assise de la jeunesse daal di leen laaj la mooy seen mbëbët ngir ñu mun cee andi ay jéego. ni ñu defee assise de la justice mënoon nañ defee noonu assise de la jeunesse laaj leen yéen lan mooy seen priorité na seen bu dee ñett sax yéen ci lan ngeen bëgg ñu jàppale leen. ci jamono jooju nag ki nga xam ne moo di suñu njiitu réew di euh, Bassirou Diomaye Faye mu nga fële ca euh, sommet boo xam ne moo soxal euh, waa kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ña nekk ca fële ca États-Unis mbootaayu xeet ya nag daal di taxaw moom moomee di Bassirou Diomaye Faye nag daal dina fa fësal ay kon message wala discours bu am solo jëm ci ñi nga xam ni ñoom ñooy membre yu boobu lépp kon mbootaayu xeet sax sàkku ci ñoom nag lépp lu jëm ci ak soppite goo xamante ni jot na nag ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy gouvernance politique yi ak économique ñu daal di nag euh, changement bi nga xam ne moom fas yéene am ci biir gouvernance politique ak li nga xam ne moo di wàllum économique ci euh, àddina bi ak ni muy doxee jamono ji ñu teewlu ci kii di Khady Sall ginnaaw ba doon amal li di ubbiteeg 79e session bu assemblée générale des nations unies kile di président bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye mom amal na fa rek ab discours ci kanam mbooleem ñu teewoon na ci li ñuy wax sommet de l'avenir ci kaw lolu nak ñaan na rek ñu baña bay bàyyi kenn ginnaaw ngir rek ñu mëna xéxal xeexal li di ndóol. ngir euh, ëllëg bu muccu ayib jëm ci walum sécurité jëm ci li nga xamantene mo jëm wuté bi am ci walum développement ak euh, li nga xamante ni moo jëm ci xeexlu lu jëm ci wàllum pauvreté dañoo war a boole ñëpp waruñu bool di kenn li ni mel daal moo mun a tax défi yi nga xam ne mu ngi suñu kanam ñu relever ko. ba tey mu yokk ci ni jot na ñu taxaw ci det yi nga xamante ni taux biñ ciy teg mi ngi sonal bu baax a baax yenn ci ay réew. dama jàpp ne dafa jot fu mu toll nii ñu fexe ba bor bi nga xam ne eh, réew yi ne doole amel nañ koy yenn réew yi ñu fexe ba xool naka lañ koy dindi ak taux yi nga xam ne ñu koy teg ñu wàññi ndax li ni mel day nërmalul li jëm ci économie suñu réew yi lii nag li ko mën a dindi nekkul lenn réew li nga xamante ne ñu fexe ba am croissance bu mucc ayib rawat nañ lu jëm ci wàllum développement ba fexe suñu réew yi daal yokku ba bor bi nga xam ne mu ngi tegu ci suñu kaw te di ñu gën a euh, suufeel ñu fexe ba yépp ñu corriger ko. ci ay kàddoom ki leen di njiitu réewum Sénégal nee na jot na rek ñu taxaw temm ngir mën a càmbar li ñuy woowee gouvernance politique économique waaye tamit financière ndax mu gën a méngoog dundinu jamono. dafa jot euh, tamit ñu xool naka la ñuy defaraatee suñu politique économique par rapport ak li nga xamante ne moo xew ci àdduna bi jot na nañu réfléchir tey xool boo xam naka la ñuy def ba mun a indi ay progrès. lu jëm ci wàllum yokkute fexe ba li nga xam ne daal daf ñuy yóbbu kanam ñu waxtaanee ko bu baax a baax fi nga xamante ne nag fa la ñuy décider mooy fi nga xam ne mooy g war nañ fexe ba waxtaanee fa loo xam ne dina suqale li nga xamante ne mooy suñu koom-koom ñu des ba tey ak suñu njiitu réew mi nga xam ne nag jot na fa daje ak ki nga xam ne mooy Antoine Blinken di secrétaire d'État américain bi moom nag euh, ñoom ñaar daal nañu fa euh, kon waxtaanee ay ponk yu am solo jëm ci li nga xam ne nii moom mooy euh, coopération bi am ci diggante Sénégal ak États-Unis la ñuy def ba gën ko daal di dëgëral waaye tamit lu jëm ci li nga xam ne moo di wàllum xeexum mbuxum mi ñoom waa États-Unis nag nee nañu 5 millions de dollars la ñu fas yéene daal di taxawal ci ab programme boo xam ne dañuy dimbali Sénégal ngir mu mën a xeex lu ni mel ñu ànd ci ak ki nga xam ne mooy mam Awa ki di président bu Sénégal nak mom di Bassirou Diomaye fay mom dal dinaay dem fële ci États-Unis ngir mëna a ab assemblée générale bu ñu fay amal at bu nekk fofé ci États-Unis ci boobule occasion sax mom ki di secrétaire d'État d'Amérique mom. président de la République bu Sénégal dal dina koy recevoir démb ci talata ji ñaar fukki fan ak ñent ci weerum septembre mom mais nak teg na ay mise en place yo xamante si ci ay programme de financement yu tollu ci cinq millions de dollars ngir mëna jappalé réewum Sénégal ci xéx li nga xamante si moy wàllu corruption ñaari kilifa yooyee nag moom waxtaan nañ ci lu jëm ci wàllum renforcement bu coopération bu dox ci diggante Sénégal ak it États-Unis boobu leen nag moom daal dinay tax ba ñaari kilifa yi nag daal di waxtaan lu jëm ci wàllum renforcement jëm ci ñaari dëkk yi ñaari dirigeant yi nag moom waxtaan nañ ci lu jëm ci wàllum kaaraange jëm ci dëkk yu Sahel yi ak it ay xeex yu ñuy nemmeeku fële ca Moyen-Orient ak it ci sous région bi le dëkk bii di États-Unis nag moom daal dinay pare ngir jàppale réewum Sénégal ci ay effort yo xamanteni si dañ koy daldi def ci amélioration jëm ci walum gouvernance ci njeexital nak ki di président de la république bu Sénégal di Bassirou Diomaye Faye nak mom daldi nay xam len ni yeneeni secteur yo xamanteni si ay priorité la daldi dinañ koy def ci agenda national bu transformation bu Sénégal ci atum 2050 lu ni mel nag dinañ ko daldi feussal juroom ñaari fan ci weerum octobre jërëjëf ma Awa Sall yemoo ko fu ñuy yëkkatee jotaay bi jaajëfal euh, ñi nga xam ne ñoo faree ci wàllum technique bi également ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci rédaction bi jaajëfal leen leen ci ànd bu rafet bi ak suñu programme euh, fi ci Global Télévision xam leen ni seen colté mooy lu ñu sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu laxuñu fa yàq yeggul ñeen doog jàmm ba subaak jàmm incha allah